boo ko defee boo ko defulee ndax du wàññi dara ci julli yi nga def ci journée bi yépp déedéet mais dafa mel na kon euh, point bu ñu wàññi ci yow rek la safa ak huit heures sunnatu mu akkat la mhm. sunna bu dëgër la dafa am sunna bu ñu sob ak faratu benn farata mooy julli suba gi waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko nit sax mën ngaa sonn mën ngaa julli fii géey nii neel benn mhm. dem sa kër gëmmentu tëdd nelaw waaye balaa fajar jot na nga ko fay. donc ñu bëri sax dañ ko def mais bu ñu teelee yow julli julli fajar wala julli non dañuy dañ teelee yow dañuy julli safa ak huit mais balaa waxtu waa jot mais nag comme léeg-léeg mën ngaa saaraan maanaam an ko daal sunnatu akkat la dafa dëgër lool ndax daf lay yokk say point yokk say bonus. waaw araamul nag araamul de mais liñ ci islam ba ñu mooy nga di ko mu bëri da nga ne mujj dootu ko defati. Mhm. safa ak huit heures mooy ñaar ràkk la. nga julli Fatiha Fatiha ak saar ñu ne xul yaa xul yaa kaafiruuna ah ayaatul benn bu la neex naasi bu la neex xul wala xul wala ahad kooku moom bu sëlmani nag jeex na safa mooy bi jiitu witr mooy tool bi sax safa mooy tool bi. ok jërëjëf jërëjëf euh, yaa Seydi alors euh, kii tamit nee na bu fekkee dafay fay boru kooram yi tamit sa olof bi kenn xamul lan la. nee na bu fekkee dafay fay boru kooram yi. te matalewu ko koor gi yegg si ndax jour yi nga xamante ne jotu koo fay ba mu yegg eh, ndax mën na koo génne mudd koor. Hmm, waaw parce que mënu ko fay parce que bo bu bu koor gi koor gi mag bu duggusee fekk matalut xam nga léegi euh, mun a nekk. mënut a nekk. Mhm. te no yàlla moo xam ndax dana àggaat ci weer wala ñëw yal na fa àgg ak jàmm. Mhm. kon na génn mudd mi na génn saraxe yeneen na te nag na moytu ba yooyu bañ ko dal. ndax sàgg parce que islam dafay wax naan tusu nit day rëcc loo xam dafa wees. Mhm. peut-être erreur la amoon mais bi ko sariya demee xam-xam dab ko naa eh man kat am na ay bor te ko jub si na noonu mu ne kon génn ko nga yéene ko jox ko kii xam dafa war day woor. Mhm. d'accord jërëjëf euh, jërëjëf yaa Seydi alors euh, je pense que euh, waaw question yi je pense jeex na dañuy bàyyi ba àjjuma bii di ñëw comme ça ñu ñu mën a. Ah, parce que mam mami tamit. <laughs> waaw man yii. mais yow li nga war ko man sa question am naa question. Ah, question réponse am naa ko. pour man. man man damay wax sama bopp tontu sama bopp. ah ah, ah yow yaay question. ñaw ah, ñaw Oustaz <laughs> ñaw bëgg naa léegi euh, dañu nekk ci ndax mhm. yàlla yàlla yàlla def ñu fekk ci jàmm ci koor gi. yàlla fekk ma ñu wér gu yaram. yàlla ma ñu wërsëg. ndax koor wërsëg te ca bokk. yàlla ma ñu bon santé ñun ñëpp ñu fekk ko. nga xam ñu la comme yàllaa ñu ko sant ne wóor leen mu jëriñ leen. mu ba yàgg mu ne wóor leen ngeen wér xool leen mu jëriñ leen waaye yonent bi nee na wóor leen ngeen wér suumul sixa kon bu ngeen yonent bi ne bu ngeen wóor ngeen wér waaye nañ wóor waay waaye nag nañ fexe ba bu ñu lekk lu araam hmm. nañu moytu jotaay bu araam nañu moytu ay cax ay kaf-kaf yoo xam ne bi am la araam kaf bu bari bi gën a yées mooy ci téléphone yooyu nga xam ne bii dafa am ay ay film yu bon yooyu moytu leen di ko xool day yàq sa koor dem géej moytu leen ko ndax leen gis fu la wut a gis lu yàq koor dafa bëri te sew te ñu ñu bàyyi xel loolu lépp nag mooy awaduma yej ma àddan mukallaf tax sewut imaan nit daal ba dee ba ne musulman nga mukallaf nga léegi kay war ngaa léegi vérifier sa ngëm yàlla fu la yàlla teg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi orienté la ba nga tegu ci te moytu lu bëri ab julli daal boo demee julli nga war nga julli Seynabou. waaw yaa Seydi nañu julli yàlla julli da ko fonk lool teg ci nañu woor mu génn asaka bu ñu ko mënee. bokk ci ponk lislaam bokk ci islaam yi zakat day yokku alal zakat day barkeel alal day yokku alal. yokk sa bonus baaxal sa publicité sa commercial yokk zakat mais bëri na ko xam ne du génne zakat wala xamu nu mu koy génnee xoolal day wàññ sa wërsëg dugg sa dugg dugg ko daal di koy maxal mhm. lakk ak yàqoo ñu sàcc mu ñu tafu la yépp ci biir bëri ku ñu ku ñu këf këf alalam ñeel benn mhm. daj ay mbiram ñaar ñaar a koy waral ba ñett mooy riba da caarax riba riba lu garaaw la moo tax sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xutba ajuma tey bi dana sarrul makaasibu riba wa sarrul maali ko aklin mali yatiimi et les musulmans yi góor ak jigéen moytu leen di fàggu bi maa du ut riba moytu leen ko loxo. d'accord yamu ca mais day posone sa njaboot yàq sa alal gàtt sa fan. yokk du feebar boo xam ne néewul ci yow riba ñu ne lu ko gën a yées mu ne fekk alal jirim ku bàyyam de bàyyi fi ndénkaan alal kër yow nga def sa tur di ko lekk walla yow imam bi ngay miraas détourné miraas bi ndax la dañ laa koromp digul baax na maa de mu looloo indi coowal jumaa yi ci jàkk yu bari mooy ñaar dañuy falsifier miraasu jàmbur yi yonent yàlla Muhammad neen moytu leen ko sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu lu mu ci tegati. sàkku uh-huh. lu tuuti te baax. mu jig leen jëriñ leen bàyyi ci yéen jeexital. qalilan yukfiika min xayri kasidin yurdika maa huwa yurdika mooy nga sàkk lu bari ci alal tabax yu bëri yeeg oto yu bëri yeeg milliards yu bëri nga def nga def détournement. Uh-huh. mu ne dal yonent bi nee na balaa ngaa dee sànku. Uh-huh. kon bëri na koo xam ne bi amoon na mu ne mu mujj de yalwaan kon nag nam ko amee woon wala ñoom ko sequ la trahir te nag adduna bi hmm, administration la lam la lan la administration xam nga oto oto administration nu mu tudd AD. AD waaw. mooy abu delloo. <laughs> waaw abu delloo la de. waay waay waay abu delloo bi rek rek mën nga fay firi lu ne kon dara jaru ko fi dugg auto climatiseur sëwër mi garde corps bi yu jóg te nag. bala nga bala nga xam garde corps ah moom dañ ko dénkaane nga dem bañ folli la yaa dawal sa bopp de. moo tax ma ne ku mu mbëkk ma constaté la ndax ñi ko yoru yorutu ko bi maanaam daal fi ñu nekk ci ajuma ji de mooy nañ yar suñu doom ci jaamu yàlla te nañu moytu sàcc ndax démb boo xoolee li gën a yées mooy ñi manifester comme opposant ñi ngi manifester am seen àq ak seen yelleef lañu la bëgg a xañ loolu moom seen normal waxoon naa ko dem ci sama émission laa tax tam mën na liqaa adiwin fa ida laqitumuhu fasbutu yonent bi moo nee na bu leen mébét dal ci buur bu leen ëpp doole waaye sa àq ak sa yelaf buñ de bu li ko xañee mu ne ripostel aa ci biir loolu nag seytaane mi nga ne bi sàcc beeg tafakat beeg agresseur bi moom yoonam ci lii lii Sonko dox ak keneen moom nu mu dajee biti gi jël alal jaamu loolu ko yitteel moo tax ñu ne kon nag al fitnatu naa imaam kon bu doon mën nañ gëstu ñii kar nit ñi di jël seen alal loolu moo yàq mbir mi te nag moo tax moo tax jàmm nguur gi président ci boppam moo war a calmer lii du opposant yi rek la mais wuy yi nga xam ne bii xaw ma dugg nañ ci réew mi yàlla xam waaw ñu ci réew mi xam ne yàkkamtu rek lii am rek ñu kar ñu kar oto yi te te seen portable ak yi lu yoon jëloon kon islam bu naan fitna fii ngeen ko yaakaar ak famille lawe du benn ndax dugg fekk ku yor yi njaayam taximan muy daw nga nga nga ne client ba jox ma sa calpe mais kii est-ce que opposant la ñu ne kon nag fitna boobu nag musiba la cim réew nañ ko art balaa dana ñëw. Mhm. di ñaan yàlla tabaaraka taala imam buy xutba na def actualité bii mooy ni ñu fexe ba jàmm ñëw ci réew. borom jàmm nag mu ngi seetaan mi ngi ñuy déglu xam nañ ko xam nañu muy kenn muy njiitu réew di la ñaan jàmm mi sa loxo. bu doon caabi oto la contact bi caabi ji yaa koy démarrer soo ko démarrer du tàkkatu du bouger kon li ñu ñaan mooy wooteel bu bu sëriñ sépp woote wut mais jàmm yàlla yaa ngi fi Seynabou. waaw man awma taalibe ne benn. mais am na Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. bëri na ko xam te mu taxoon fii ba tamit ci tableau wax ci yoonu Rasulullah lu mu xamut barke laa ilaaha illallah wax ci yonte bi lu mu xamut mais oustaz Diaga sant santuma leneen waaye li sama dënd bii. yanti bi jàngal ma ko doon sénégalais di musulman di africain dëkk fii ci banlieue wa rabbil kaaba dem makka ay yoon dem fu Seydina Muhammad dem te ñu ba demuñu fa mais nag dafa am cër bu leen yàlla jox ñoom ñoom ñoom wax nañu waaye man damay wax li may wax lan yàlla rek laa tax may yonent yàlla Muhammad bisu denn bisu dee wala du bisu dund waaye bisu dund nit du bisu dee man damaa bëgg bu su ma taxaw ci kam Seydina Muhammad mu ne ma félicitation Oustaz Diaga walaay loolay ñaan ñun ñëpp. waaye di ut lu la neex ndax lan liñ la boqal mbaa liñ la dëkk ak liñ la jox ci financement ba tax na dëkk yi tàkk nga ne miig kuñ gës kuñ gës ba suura nga xam ne da ngaa da nga naalu da ngaa yaa ngi soog a yeewu moo tax ma ne yàlla yàlla la du nit du jënde yàlla du malayka yàlla du yonent yàlla du rawxaani yàlla du asiatique du européen yàlla du pël yàlla yàlla la te wallaahi nu wax dana ko def kullukum raayi yéen ñëpp sàmm ngeen. kullu raa'in mas'uulun an ra'iyyatihi kenn ku ne li nga sàmm dinaa la ko laaj kan man hël lu tax xool yàlla bu ne diw diw mais yàlla dana kullu ñëpp da wax man sama doom sax sàmm laaj ci moom yàlla dana laaj nu mu ko dénkoon sàkkatuma réew réew du lu ñu foowe boo dee yéen ñëpp ñëw war nga leen wax ci diina ji mais yedd leen seen seen dundin. Mhm. jëf yi metti na dund bi metti na yaakaar tas na. Mhm. kenn amatu foo dëkk ñu ñu liggéeytuñu lépp seer na. te duñ ci wax. te bisu ñoom bisu ñu am cérémonie jamais nga di jox di koy moo baax. moo tax li ñu gis mu xew sax eh, dégg saa. la xewoon euh, mars 2021 ñëpp euh, di ñu xiifoon dañ leen tëjoon. <laughs> xam nga euh, Sénégalais yi dañ doon suffoqué moo taxoon ñu génn di manifester mais la xew démb wane na ni la xewoon peut-être mars 2021. Mhm. wala nit ñi xiif ba ñu xiifoon kon daa gën a yokk. bu fekkee noonu lañ ko jàppee wala tëj bi ñu leen tëjoon dafa gën a yokk il faut ñu ñu tirer des leçons ci li nga xamante ne mooy xew ci réew mi parce que c'est des situation yoo xamante ne amuñu envie dundaat ko te bëgguñu ko dundaat parce que insécurité kenn buggu ko ci réew instabilité aussi kenn buggu ko ci réew Zeynabu mhm. damay fara wax ci biir wax ci te waxaan nga ko léegi yaa may sa courant fàtte woon naa ko damay fara wax naan génération yoon Senghor ak génération Diouf du benn mhm. génération Abdoulaye Wade du mais bu Macky Sall du benn laaj ma lu tax génération bi seen yaakaar moo tas ku sa njaay doon njaay yàqu na ndax la sa jaba tas na dem. Mhm. ku jàngoon ba wóorul booy booy booy nekk ministre député yore yoram réew tey yaa ngi jaay crème glace. Mhm. maa ngi yor cag-cag léegi nag naqar woowu mu nekk chimique mu dajaloo. Mhm. benn jour lañ ko exploité moo tax réaction démb ku ko xool. bu ne monsieur le président ñi ngi lay xelal faire attention démb da ngay xool di nga xam ne ñii du ñu ay agresseur déedéet xoolal ay mm-hmm. patriotes lañu ay sénégalais lañu ay mécontents te certainement loolu naqari te loo nag ëllëg nga jàng ci buur day am yërmande. Mm-hmm. mais buur dee waxtaan. buur da nga mën a def comédie quoi di kaf nit parce que lu ne loo gis loo gis loo gis sa waxtaan la. dëgg la nee naa benn bonut benn sénégalais soxor benn sénégalais bonut. mais yaay fekk bi ma nerf psychologie bi nga xam ne bii nervus la dafay day day nelaw yaa koy yee xoolal ko ko xool sa ñu ne diw bàyyam dem dem la faatu. moo doon fay location dem la faatu bàyyi mi doon fay ci prison bi ay sëram te ñu ngi taxawaalu mu jàng ma am doctorat mas mas ma master am lépp tey bu génn ñu naa koy amoo amoo njariñ teg koo dara mun am ñetti xool naqar ku ko teg. état ko teg moo tax benn affaire bu amee rek. Mhm. la tatamannu liqa adin fa isa laqitum xam nga wax. Mhm. doo ko yërëm di la vérité monsieur le président doo wax wax mukk doo jeexal barke la ilaha ñu def jiitu ni ñu ba dem yaa ci tegu lu waaye wax ne dugg fi amul njariñ dem ci presse bi amul njariñ bisi nga ñëw ñu jaaroon na fi nekkoon na fi rek ngay dégg. Mhm. ma bëgg nga rafet ci. lu la waaye wax lu lii dalay nax barke la ilaha illallah bu doon liggéey rek la Ablaye du dem bu doon projet bi wallaay du dem mais ab pam moo jeex kullukum ra'in benn yàlla alquran mooy moo gi féete wax kaw ñépp laa lay wax malikul mulki tuutil mulk mi man tachaaw laa ilaha illa allah ku wax yonente waxul ku wax buur waxul ku wax sëriñ si waxul yàlla moo wax hmm. man buuri buuri man buuri ya man yàlla maa leen fal buur moo xool 17 millions sénégalais sénégalais hmm. na coppet kuñ naan makki Sall cosaanoo ca Fatick ne ko tey lii dénk naa la ko wala déggul néewul may naa la ko jox naa la ko dénk naa la ko kon da koy nangu mu ne ma bàyyi mooy xool nag nooy mel ndax da ngay baale da ngay jëlale da ngay jéggale da ngay xool ñi ñàkk nga dimbali leen li nga woote bi sa Sénégal ku ne nga jox ko ne moom bu kenn du jaaxle. bi tey bi tey tegal ma euh, préparel ma élément bu Ousmane Sonko bi muy jógee këram. ñu ah jëm euh, fële na le ca euh, tribunal boo ma mënee préparel élément bi le temps oustaz di daaneel comme ça ñu mën a dem xool ko balaa ñuy ñëwaat ci plateau bi. mu ne ah. mu ne nag boo demee ba war a jeex ngay ut ay galgal yàlla nag na wa tanjiu alxuraan lay wax. Mhm. mais foog nga am déggin pédagogie wax nit kii nga dégg mu xam li ngay wax lan la. yàlla mën na wax ba di wax ci nguur dara ndax borom nguur la mais dafa dafa wax ne nit dafa sàggan ba boo liggéey koy dal man na ko arrête lu tax mu ne wa tension bu demee ba pouvoir jeex ngay ut ay kalkal comme Madior Cissé la ko Madior di ut looy looy ñaw di di taf tafal ku daan jàngale tey jii wecc tax ngay jaay sa ngor xanaa gëmoon doom ëllëg. Mhm. say sët fu seen mam nangam nangam dara jaru ko dara jaru boobu nag yàlla nee na ko tout outil mun ko maa la ko joxoon. loolu waa yàlla lu tax mu naan ma dama dama koy bif ah arrête ba mu yàlla mer na lu tax da nga def loo xam ne bii dafa wut. Mhm. kon monsieur le président bu ñaan yàlla àgg fa Sonko sa frère la Karim sa frère la Khalifa sa frère la ñoom de ci ñëpp say frère lañu ñoom ñëpp même pièce carte nationale bi mu am na nga am même sëriñ bi même dof bi même pays égalité ak rafet ëllëg ñu ne way mais bu leen ut lu neex tubaab yi. man daal xaw ma ni lu leen dal nga nekk arbit ñu dem élection que le meilleur gagne wallahi nga baal ma boo jaaroon fii def yar mu neen nit dana dugg ci kër gi génn solo la yër ndax suturaal la ko yaa koy may fii nga koy may sa bopp. Mhm. te nag dara gën neex bàyyi sa réew toog fii dem jàkk jeeg ñu naan may leen ko place moo gën bu mu fi dugg lu ko waral loo liggéeyoon la te kullu nafsin bi ma kasabat lu waaye liggéey lu nekk la yàlla ay fay fay moom yàlla rafet. yal na rafet man sama papa nga Touba ma suul. Uh-huh. sama yaay nga Touba ma suul. boo amee ñax rek dama ñe maa ko bay moom moom mun koo bay ñëpp daw dañu bàyyi ko fa lekkatul naa na tut jëfam rek yàlla fay ne ma suulee sama bàyyi suul suma yaay kon ne loolu la ñuy suulee ku bàyyi xas ku bàyyi xel bàmmeel. jërëjëf bu bëri doo ko def. jërëjëf Yacine loolu nag mooy xutba ajuma bi. Mhm. yal na yàlla def jàmm ci réew mi dinañu ñëwaat léegi nii euh, ndax waxtaan bi dina dina gudd le temps que Bassane daal di yegg euh, ñu mën a wéyale waxtaan bi alors dañuy def rek un petit